Euh, di sant yàlla ci taxawaay bii ñu taxaw ak kàddu yi nga xam ne moom lañ bëgg a jotal muy kàddu yoo xam ne kàddu yu gàtt rek rek ñu di ko guddal ndax li arab di wax na xayrul kalaam ma qalla wa dall maa ngi wax waaye maa ngi wax ci tiru shabab yi nga xam ne ñoo nekk Madina yëpp ci góor ci jigéen ci mag ak ci ndaw waxuma ci sama tur rek ñun ñi nga xam ne ñu ngi ci gannaaw Macky di ko jàppale ci waxtu nekk ci li nga xam ne moom la bëgg ak fi nga xam ne fa la bëgg a jëmale réew mi kuy liggéeyal nit muy am li mu bëgg yaakaar naa moom it bu amee lim bëgg wax ko war nañ ko koo mën a defal te loolu lépp luy defar réew mi rek la te réew mi li koy defar ñun ñëpp ñu ànd ci nekk benn déggoo ci waaye mu fekk mu dëppook li nga xam ne moom la président de la république bëgg loolu mooy li nga xam ne mooy li jaadu te mooy li war pour loolu am ba tax na maa ngi wax ci turu shabab yëpp ne li nga xam ne moom lañ fi bëgg a taxawal muy Auchan bi nga xam ne moom lañ fi bëgg a indi loolu amut kenn koo xam ne d'accord na ci du góor du jigéen du mag du ndaw waaw d'accorduñ ci tey d'accorduñ ci ëllëg liñ bëgg mooy ñu jàppale commerçant yi ñu liggéey wax dëgg yàlla euh, réew mi avancé wax yàlla am fii nga xam ne ñu ngi fi nekk taxaw fi taxawaay boo xam ne jëmul ci kenn ku may ci président Macky wax dëgg yàlla am loolu moo tax ñi mën a taxaw pour wax suñ bëgg-bëgg yaakaar naa ne bu amee li nga xam ne moom la bëgg fii te fii kenn mënu fee am leneen loo xam ne lu mu bëgg la ku dut moom kon yaakaar naa bu ñu amee loo xam ne ñun luñ bëgg la teg seet nañ seetantal ne loolu bu ko defee mooy li gën moo tax ñi mën a taxaw di ko wax ci turu ñoom ñëpp di ñaan daal Auchan bi nga xam ne ñu ngi ko fii bëgg indi dëgg-dëgg ñu arrêté ko te xam ne daal gën lut ñi nga xam ne moom mooy shabab bi gën a lut ñi nga xam ne wax dëgg yàlla mooy ñi fi dëkkee ci gàttal loolu rek lañ bëggoona wax ne dimbale commerçant rek ñu liggéey wax dëgg yàlla am avancé ñëpp nekk ci jàmm loolu daal moom dañ doon sàkk di ko wax ñu ngi sant ñu ngi gërëm.